dikkati naa Sénégal de fi mu ne moo tëggoon itam ñu koy tëggee ci boor bu ne ci bitim réew Le Soleil yéene kaay ne moo taxit nguurug Sénégal day sol nab yére sapeur pompier ngir fas yéene fay gépp daay goo xam ne bitim réew ubbi nañ ko ci réew mi di lakk kay réew mi jëx-jëxi ñuy wax yoo xam ne maar day taali ci réewum Sénégal Le Soleil naan gouvernement gaa ngay leeral source a naan man bugaan gay danee nga naan leen cam te naan ci la mandat yéene kaay lan moo dal laa bëgg xam mbaa réew nag dëgg-dëgg dafa dëgg liggéeyu jàmbur ci 24 heures yéene kaay muy xamle ni kaddu yi ñu yëkkati démb waroon na ñaaw du dëgg le soleil yéene kaay ne ko déet gouvernement gu Sénégal kay moo doon andi ay gindi ci lan moo tax nag ñu coupé signalu wal fajri bugaan géey dani ci tribune yéene kaay naan ko dara da ngeen koo tëj ndax da ngeen bañ wal fu wane la nga xam ne neen télévision yi artu woon ngeen leen ba sañatuñ koo wane te ko wane ngeen tëj ko niki ni ngeen def wal fajri loolu la le soleil yéene kaay naan koon gouvernement gu Sénégal nee na feetuk tabaski ji mën naa neex ña ngay joxe assurance ci loo xam ne askan wi bëgg nañ ko ñu daal di koy jàppale Bougane Gueye Dany ci l'indépendant yéene kaay naan kon tabaski ren gii la ngeen di wax ba mu jaar yoon dama koo gisul te la ngeen wax ne tabaski bi dana jaar yoon daf noo yeyul waa lu tax waxu leen ci xëyu ndaw yi lu tax waxu leen ci askan woo xam ni sonn na ndax njëg metti lan moo tax waxu leen ci location bi ngeen ni da ngeen koy wàññi furaas le soleil yéene kaay naan kon Bougane mayel gouvernement gi mu wax ndax wax na ci manifestation yi nga xam ne am na gannaaw ba ñu tëjee Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany naan leen tëjub Ousmane Sonko googee la ngeen yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñoo cay wax waaye këram ga ngeen ko tëj tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon si te kër góor gi ngeen fattuñu ndax génn nit suñu njaboot gi dematuñu dikk njabootu Ousmane Sonko ngeen xoqatal leen bundu xatal leen ci réew gi ñu dëkk kenn koo xam ne nangu na dëgg laa ne du nangu lii ngeen xam ne te ngeen ko Ousmane Sonko le soleil yéen a kaay naan na gouvernement gaa ngi wax ba tey nee ñu dañuy ubbi ab enquête judiciaire ngi xam le dëgg-dëgg lan mooy yàqu keroog ba nga xam ne manifeste am na ci réew mi Amadou Ba naan toppit ña nga xam ko sabab bugaan gay dana ci turbine yéen kaay naan leen ubbi leen ab enquête ci ñi nga xam ne faatu nañ ci manifesté yi ba nuppi ubbi enquête ci ñi nga ne dañoo yéegoon ci pick-up ànd ak takk der yu réewum Sénégal ñoom ña nga ne ay civil lan di tiire ci askan wi yor yor yéen kaay naan gouvernement gu Sénégal tey ma fàttali leen ñeen fukk ak juróom benn ndaw yi nga xam ne faatu nañu te ñoom ñépp nag ci diirub ñaari at yi la ñu faatu ci réew mi te coowal Sonko ak Adji Sarr xun ma moo leen faat yor yor naan koon ñaar fukk ak ci doomu aadama faatu nañu diggante benn fan ak ñetti ci weeru juin limal fàllu seen faatu na Ousmane Badja faatu na Souleymane Sano faatu na Lansana Sakho faatu na Basirou Sarr faatu na El Hadji Mamadou Sidibé Cissé faatu na ñu gën ko xam ci Boga Mor Ndiaye faatu na Khadim Ba faatu na Babacar Samb ñu gën ko xam ci Mbay faatu na Doudou Diène ñu gën ko xam ci Petit faatu na Babacar Diémé faatu na Ibrahima Drago faatu na Mohamed Silla faatu na Ismaïla Traoré faatu na Babacar Mbaye Silla faatu na Babacar Ndoye Mbaye Ndoye faatu na faatu na Abdoulaye Camara Baba Kana faatu na Mame Balla Sarr faatu na Seyni Koli faatu na Souleymane fa Sarr faatu na Sidi Diatta faatu na Oumar Sarr faatu na laata ñoom ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi faat nañu Alioune Bodian fukki fan ak juróom ci weeru mai 2023 ñu faat Pape Amadou Keita faatit Ismaïla Diédhiou fukki fan ak juróom benn ci weeru mars faat nañ Mamadou Korkaba faat nañ a Diop fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin 2022 faat nañ Alexis Abdoulaye Diatta faat Serigne Mame Sankhé faat Idrissa Goudiaby ñeenti commerçant daal di faatu ci Colobane mars 2021 fukki bakkan ak ñeenti rod na bu naa ma simpa saña faatu ca Masariñ Gueye faatu ca Alassane Bari faatu ca Baye Cheikh Diop faatu ca Pape Sadio Camara faatu ca Chérif Abdoulaye Mané faatu ca Famara Goudiaby faatu ca Modou Ndiaye faatu ca Pape Sidi Mbaye faatu ca Mansour Thiam faatu ca Cheikh Ibrahima Koli faatu ca Cheikhouna Ndiaye faatu ca Cheikh Wade faatu ca musa Dramé faatu ca Le Soleil kay kaay naan teewul gouvernement gi nee ñu daañu ubbi ab enquête xool dëgg-dëgg ñan ñooy déstabiliser réewum Sénégal xool nag coow yeeg faatu yi kan moo lan moo ko sabab bugaan gay dana ci turbine yéen a kaay naan kon yéen a seen njiit yéen bëgg xool ni ngeen di àndal ci élection yi waaye yéen ak seen njiit yéen a bëgg dàq élection yi yéen ak seen njiit yéen a fi bëgg a samp waat 2024 duñu ko nangu gouvernement gi ci la soleil yéen a kaay yi nga xam ne ñi gis waa bitim réew di ko wane daanu ci ubbi ak enquête ndax nag am nay montage bugaan gay dana ci turbine yéen a kaay naan leen montage lan la ngeen tere télé Sénégal yi wane ko la bitim réew wane benn montage amu ca ay nervi ñoo fi nekk di a naan kon en tout cas premier ministre Amadou Ba weddi na la nga xam ni mooy négociation diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall Ismaïla Madior Fall garde des Sceaux naan Ousmane Sonko day bés bu rafet la ñuy xaar ci moom maanaam juge bi daal di bind kayit bi nga xam ne moo war a tax ñu jàppi ko moom Ousmane Sonko Vox Populi naan man ña ngay xaar jàppam réew mi ko di jeenaan naan kon te du yàgg ndax gaa yi wax nañ ca Walf ko di jee naan kon mbaadu coowal Ousmane Sonko nag ko nar a àttewaat bugaan gay dani ci yéene kaay bi naan leen la gouvernement bi wax ma ne la ku am nopp gar mi xam dëgg las yéene kaay parewul gouvernement gaa ngay xupp l'info yéene kaay naan teg ci nag di chargé ñoo xam ne dañoo bëgg nërmee état de droit ci réew mi direct naan kon ab gouvernement gu taxaw temm ci état de droit ñëwaat ci réewum Sénégal la ñu am l'évidence yéene kaay naan kon Bougane Gueye Dany nee la ngeen teg laa wax la ñuy teggi fee ndax du dëgg te naan leen ci l'exclusive yéene kaay xam nga kàcc moom boo ko tegee jaarale ko ci buntu soo duggee da ngay fekk dëgg moom ne faax ci salon ba la xaar a ngay wax ci mensonge d'état ba nga xam ne nag gouvernement ba ma ngi fay leerale dëgg coowal Ousmane Sonko li Dakar Times naan maan Amadou Ba ma ngay xamle ni senegal ab état de droit la dee su nangu nag ku koy caxat-caxatee nekk ci réew moo xam ne danga naan saa bu leen neexee ngeen taal saa bu leen neexee ngeen fay du fi amee maître Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall Antoine Félix Diome ak Abdou Karim Fofana waxtaane nan jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci réew mi waaye nërmeel gi nga xam ne bëgg nañ ko nërmeel ak suuxal réewum Sénégal tribune yéen kaay naan kon bu leen leeree ne yeeyu leen kenn rek mu baax libération yéen a kaay naan kon terewul ay ñooñu Ousmane Sonko ñu ngi leen di làq plainte bi wala ñu nekk ci contrôle judiciaire l'exclusive yéene kaay naan man ci coowal Ousmane Sonko lii naroon nañ ci nag rëppal direction générale bu impôt et domaine directeur général bu ngeen xëyee di wax xelu ña nga xam ñooy ñëw ci direction générale bu impôt et domaine naan leen lañu liggéey démb ci wàllu taxe musuñu koo am daanaka téeméer boo jël fukk ak benn ya ñoo top mouvement d'humeur bi ca nag réewu démb gi amul lenn loo xam ne wàññi na ko ca nañ doon recouvrer recettes yi ndax nag syndicat bu liggéeykatu administration fiscale bi ñoom ci boppam ñoo toppul boobu le gréew moo tax nag démb li ëpp ci liggéeykat yi liggéey nañ l'exclusive yéen a kaay naan kon ba fukki milliards ak ñaar tegu na ca la nga xam ni moom lan daan liggéey bés normal ca la nga xam ni nag fi mu ne nee ñu dañ leen cooy yóbbu ca cour pénal moom maître lii ay mbele mbele la wax ji wax ji mooy bës la ñenn ñi bëgg ci ñun Antoine Félix Diome naan la ñu wër ndomb Ousmane Sonko mën na dañ ndànk-ndànk Ismaïla Madior Fall naan Ousmane Sonko nga tënku ca la nga xam ne moom la ñuy xaare ci juge bi Abdou Karim Fafan naan manifestant yi yàq nañ waaye ba nii nërmeelul benn yoon koomu réewum Sénégal l'observateur mel ni ku naan kon bu ngeen xiiroo ŋaayoo ba nuppi ngeen wax ci réewum Sénégal ak i jafe-jafeem ñetti góor ca kër Momar Sarr bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañoo ami soxna ñoo jël benn soxna soo xam ne dafa am borom kër daal di koy takk daal di